kenn ki mooy Adja Ombelico sama diggante ak moom léegi def na presque vingt ans yàgg na sama nit la mm-hmm. moo ma jox ci robb yi beneen bi mooy bis collection mm-hmm. nga xamante ne moom tamit sama rakk la tout le temps ñu ngi wax communication bi daw mu nekk lu naturel moom tamit noonu la taxawoo ci wàllu sañse bi mm-hmm. donc loolu loolu dafa nekk loo xamante ne lu naturel la maquillage Awa Kumba Diop xam nga. Mhm. donc dafa nekk loo xamante ni daal man mii sax bi clip bi pare. am naa mbégte. man sama bopp waaw yaa ngi toog seetaan sa bopp. gis nga di kontaan waaw gis nga. <laughs> boo bi mi ngi jàll mais yaa ngi. waay waay gis ne yaa ngi kontaan ak clip bi da ngay bëgg parce que sénégalais loolu la ñuy xaar ci ñun. Mhm. ñoom dañuy soxla ñu woyal leen lu neex. Mhm. mais jox leen ay images yu am solo yu set. donc. Euh, clip bi daal moom. Mm-hmm. mention spéciale ñi ma ci àndal ñëpp. di kontaan sama xarit nag Adi soo mm-hmm. parce que xam nga tabax sa kër bu bees. Mm-hmm. ak yéen nag ni mu amee ni mu neexee. ba tey goo ci nit soxla ko nga jël caabi jox ko pare ñëw taxaw nag. c'est pas facile ñëw taxaw lekk yi fa am yëpp ak li ma yóbboon ci nit yëpp moom ak borom këram ñoo ko def. donc dafa am say nit yoo xamante ni ay nit yu baax la ñu yu am yéene ci li ngay liggéey. waaw macha allah donc xëy na nag ni maman Daba men rek noonu lañ ko fay. Mm. ndaxte nit ki moom. ni nga ko jàppee rek la lay jàppee. day toll foo xamante ne nag say nit moom doo leen yemaleeg leen. xëy na looloo tax ñoom ñu am yëg-yëg. yëg-yëg boobu sensation boobu na ñu bàyyi seen lépp. jox leen ko. Mm. mais maman Daba am nga loo xamante ne yaa ngi koy waajal Sénégalais yi. waaw mm. am na lu ñuy waajal incha allah le 16. le 15. avant le 16. ñu ngi nekk live ak waa 2 bi mooy festival yi. yi nga xamante ni 2STV bi ñu ngi koy def ak foire yi. man maay ubbi le 15. le 15 su ma fa jógee le 16 maa ngi bi Radisson di ci ànd ak association Tringa. kon nag sénégal yi invité naa leen. Mm-hmm. bëgg ngeen ñëw en foule bëgg ngeen ñëw yéen ñëpp ñoo toog seetaan Daba Seye jàkkaarloog man en live. Mm-hmm. loolu dina ma neex. Ah, dañ ci jógee mois d' avril. au lieu que ma jëm Grand Théâtre maa ngi jëm King Fahd Place def affaire grand affaire de ndaanaan. xam nga def affaire de grande dame waaw gis affaire grande dame ba pare nag daal di mhm. changer données yi. dina de garaaw boo xamante ne day exceptionnel. mais loolu dina garaaw day dafay garaaw ah? parce que xam nga fu xalam nekk. kooraa nekk fa. bu ñu defee traditionnel ba pare ba nit ñi kontaan ñu wàcc def moderne. Ah. waaw taala waaw dañoo boole ñaar yoo xamante ni <laughs> woyal mag ñi mais woyal xale yi dëgg qualité géwél la <laughs> bokk qualité géwél <laughs> donc ñu gis ni tey jii mm. daba mm. macha allah la ñuy wax mm. que yaa ngi jóge ci lii mm-hmm. tegle ci semaine boo xamante ne tey jii doo ci am jot waaw ci nekk loolu la doon ñaan yàlla mm-hmm. donc nga ne le 15 incha allah yow yaay tëjji festival bi nga xamante ne moo war a am 2S uh-huh. le 16 yaa nga jëm Radisson waaw voilà après le 16 après le 16 nag buñ ci jógee am nañ ay tournée internationale yoo xamante ni mm-hmm. gars yi dinañ ci jot bu ñu ci jógee nag dañuy dellusiwaat fekk avril bi dugg ñu dem King Fahd Palace <laughs> changer données yi changer données yi waaw mais mais voyage yi voyage yi nga xamante ne tey jii yaa ngi koy def mhm. ailleurs uh-huh. mais foofu boo fa demee tamit musique moo la fa yóbbu wala bon yaa ngi ci sa yeneen business saa yu ma jógee Sénégal association moo ma jële Sénégal mm. yóbbu ma man sama tukki li ci bëpp Amérique lay nekk tout récemment boo fa jugee ak léegi ci déw mois la toll wala matagu ko mm. mais association ñoo ma jële woon fii ma ci nuyu bu baax Mama Gassama ak association bi mu àndaloon yëpp yóbbu ma foofu ci New York mm. Amérique moom sama dëkk la waaw Amérique ah. moom xam naa ni sax gars yi mais Amérique moom moom sama yëf la moom nit ñi ñoo bëgg diggante Atlanta Boston New York Washington en ah, Columbus ñooñu ñëpp dañu sopp Daba Seye am coppeel ci man rek lu fa xew ñooy dagg billet yi woo ma xam nga artiste bi dafa am lu muy soxla. Mhm. fekk yaa ngi nekk artiste di liggéey ci aar bu la yàlla suturaale nit ñi bëgg la rek deseeloo deseelatul la dara. Mhm. te man Sénégal fii la njëkk nag. fii mhm. ñoo ma njëkk a gëm. Sénégalais bu nekk ci biti soog maa bëgg donc loolu Sénégal laa koy delloowaat mbégte la ci man mbégte la waaw ñu gis ni dama Seye tey ji wax yi nga xamante ne wax nga li nga naan lépp loo xamante ne loo am rek foo mënti dem da ngay dellu si waat Sénégal ndax moom nga am ñoom ñoo la jox gëdd googu noonu mm-hmm. mais tey ji boo jugee ci lii yaa ngi waajal loo xamante tey ji tey ji albumu Daba Seye nit ñi dañ koy nam mais morceau bu bees bi ci album la nekk ci eh. <laughs> ma <laughs> ah. nee naa la boo xasee ba nekk ci yoon mm-hmm. waratoo ridicule non dafa am loo xam munoo toog trois ans yoo génnewul mm. di ñëw di joxe benn single mm-hmm. album la album la album la te na ko gaañ a xaar avril lañ ciy jot insha allah avril insha allah li ko desee bareetul bareetul dugg ci at nga dàbbali nga dàbbali daal di génn ay titres yu mucc ayib. <laughs> yu doy waar waaw lu léegi ci biir nag. macha allah <laughs> donc xam naa sa sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar mm. ndaxte bëgg nañu albumu Daba Seye mu mm. génn rek def fóol. Mm. mais xam naa sama dernière question mooy charlatan yi nga xamante ne. tey suñu match yi sëriñ si moom nañ ñu. Daba Seye est-ce que ce que loolu énervé wu la ndax énervé na ñëpp. nga xam nga maandu dafa baax. ñu mm-hmm. ne yàlla mi ñu bind. Mm-hmm. moom moo njëkk a maandu. imaginer lu toll suñu borom bind la. yenn saa yi nga làqatu def loo xamante ni moom mënoon na la mënoon na la mënoon na ko faj léegi mu bàyyi la kooku màndu na neneen euh, ñi nañu jàng màndu goog ci yàlla mm-hmm. nañ gis nga mbiru yàlla bu ci foncé moom mi dogal moom mooy def li ko sob mm-hmm. gaynde yi ay jàmbaar lañu dem nañ ba jeex boo xoolee defe naa trois mois wala quatre mois ci ginnaaw wala cinq mois mm-hmm. coupe d'Afrique lañu indil ndam la ñu yóbbu ñu coupe du monde yàlla ne woon na démb. Mhm. ñoom du ñu am ndam. pourtant ñi am ndam ñi am ndam. Mhm. beneen dëkk lañu. ay doomi aadama lañu. Mhm. donc waxkat yi nañu noppi. yàlla kenn du ko waxal lum la wonul mbaa lu loo gisul. am na nu ñu fi tuddee ay wàlliyu ak ñoo maanu. boo xoolee ku mel ne sëñ Muntaxa waxul ci dara àdduna. doo leen dégg wax ci. ku mel ni maam maam maam mbay si maam. Euh, xalifa maam Baba maam Mbaye Sy Mansour mm-hmm. ku maandu la mm-hmm. ku mel ni cene ba cene ba yi xalif yi mm-hmm. xalif yi tax ñuy wax ay sëriñ ak ñoo maandu mais lu tax ni waaye yàlla yi nga xamante ne ay nit lañ comme ñëpp nañ arrêté dóor bi bëgg jël alxuraanu suñu <laughs> borom bi di ko fooy nañ bàyyi yàpp gi ñi yàpp ñun xam nga ñeen ñoo ko def ñu leen di déglu ñoo ko def yow loo xamante ni soo ko waxee bu subaa amul ñu vaar la. li ci bàyyi xel. dama xool internet bi. ñi ñu vaar ñëpp am nañ ay jabar am nañ ay doom mm-hmm. nañu arrêté mm-hmm. nañu arrêté ñu maandu mbiru suñu borom lu sacré la mm-hmm. yàlla mi la bind yow xamaloo sa bopp dara bay wax loo xamante ni mbiru suñu borom la nañu noppi noppi leen noppi leen ngeen noppi ngeen setti li ngeen def yàlla ci bàyyi xel vaar boobu waxuma sax yàlla comme yéen xoolu leen yàlla ngeen bàyyi xel vaar. <laughs> dëgg la am na solo. ah arrêté leen waaye. <laughs> merci beaucoup jërëjëf donc maman Daba kontaan naa dama lay bàyyi rek nga def sa dernier mot. Mhm. mooy di encourager sama lion yi rek. ay jàmbaar lañu. avant mu suñu xalaat dem coupe du monde. comprendre mais tey bu ngeen yóbboo jël suñu drapeau bi yóbbu ko Qatar dem ba huitième finale. ay jàmbaar ngeen Alioune Cissé Alioune Cissé mention spéciale grand mhm. nga. ndaanaan nga da nga fubalal Sénégal ba tey nga yor équipe nationale. ñi ngi koy ŋaññi ah. mais ñi koy commencé di ko ŋaññi non loolu laay contre. Mm-hmm. tey bu dem bu gani woon démb kenn du ko ŋaññi. mais Aliou sa xamalul boppam dara yàlla moo ko yor. Mm-hmm. te yàlla moo def li ko soob. kon grand man Daba Seye en tant que artiste en tant que sœur mm-hmm. ah, en tant que sénégalaise maa ngi lay wax di courage xëcc moom bu daggul dina dikk donc ñi comprendre nag. duñu comprendre ah mais duñu mës a comprendre tamit donc décourage courage Sénégal jërë ngeen jëf yàlla na fi jàmm sax ah di ñaan tamit jàmm dellu ci assemblée nationale. surtout surtout waaw Sénégal kenn naxuñu waaye. lii rek mën nañ jàpp ni tey jii Daba Seye un bon citoyen la. Mhm. parce que man journaliste bi posé ma ko question boobu noonu. Mhm. mais donc moom mu ngi xool. liy jëmal réew mi kanam. donc mu ngi suivre actualité. Mm-hmm. mu ngi gis kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk njiitum réew mi. Mm. action yi nga xamante ne moom la ñu nekk c'est c'est pas du tout. Mm-hmm. nekkul loo xamante ne lu normal la nekkul loo xamante ne ñun. Mm. ñun jeunesse bi loolu la ñuy xool ci ñoom tey jii bu ma ñëwee set si maman yaa daba muy mm. ñaan. assemblée jàmm jàmm ñëwaat foofu noonu mm-hmm. donc loolu la ñëpp di ñaan mu bàyyi nga décortiquer foofu waaw waaw jàmm rek la ñuy ñaan xam nga jàmmi Sénégal mooy jàmm askan yëpp parce que amuñu la ëpp Sénégal ñi nekk bitim réew ca nekk ay sénégalais sax fii lañ am lu ñu am fii lañ koy dellusi mais li ñu soxla ca yitteel ñu mooy jàmm te ñun dañ leen faa teg pour suñu jàmm teg leen fa pour suñuy nakkaar teg leen fa pour suñuy manquement donc loolu da ngeen ko war di wane toujours mais bëgguñu ngeen fay nekk di xiiroo ak a ŋaayoo loolu amul sens yàlla na yàlla delloo jàmm ci seen biir ndax nag yéen ñëpp ñun ngeen fa toogal ah góor ñi comprendre ni jigéen ñi. ñoom xel yi matuñu moo tax ñu toujours mënuñu dem sans góor ñi mm-hmm. ngeen bàyyi ci xel yéen jigéen ñi tamit nga xam ni góor ñi ak ndomb tànk bu ñu mën a am rek ñoom ñooy suñu kilifa kon yal na yàlla def jàmm. amiin waaw amiin maman yaa kontaan naa amiin maa la gën a kontaan ginnaaw jàmm ci la lépp mm. xaj yal na ñu yàlla defal jàmm. ñu bokk ko ñun ñëpp. donc di am mbégte bi di leen wax ne bu leen fàtte di partager ak euh, di jot notification bi nga mm. xamante loo xamante ne na ko rek ngeen daat koy am. Mm. ci lu gaaw lépp loo xamante ne ci actu la lépp loo xamante ne rek yéen da ngeen koy soxla rek nee naa leen univers du leen may dara donc maa leen di remercier di leen wax ni à la prochaine di remercier sama caméra. Abdourahmane Amath di ko jaajëfal wax ne liggéey bi set na sell na di remercier maman yaa daba aussi di wax ne à prochaine merci beaucoup. <laughs> am góor yoo xam ne nag seen awra dafa dëñ ñi dañu tuuti leen ñi dañu gàtt mu di leen jural kersa am ñoo xam ne sax daf leen di jàpp ba duñ am sañ-sañu laaj jabar Cheikh Ahmed Cissé indi garab gu tudd régu mooy réyal guddal awra gu ngir saafara jàngoro yooyu du lu ñuy lekk du lu ñuy naan pomaat la ak liqueur nga koy diw suba ak ngoon ñaar fukki fan ak benn mu màggal awra bi ndax awra duñ ko yokk muy garab gu ñu jëlee ci meññeet ak i reen yu baax 100 pour cent naturel la amul benn effet seconder